asalaamaaleykum mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ak li ko wër yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Touba Argentine TV tey ñu amoon fi gan gu am solo ñu koy wax Serigne Mourtala Touré mu fas yéene woon a def ay kàddu soññee lu jëm ci màggalu Touba ana lan mooy màggalu tuuba ana nan la ab murit war a màggale Touba kon bu ko defee rek yooyu yëpp danañ ko waxtaane tey Serigne Moutala dana ci def waxtaan yu am solo kon du ñu def lu dul jël mikoro bi jox ko mu nuyook mbokki taalibe yi sëñ Moutala ñu ngi lay ziar. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Serigne Assane ñu ngi lay delloo ab nuyu di la delloo ziar bu baax. di nuyu mboolem ñu fekk ci jataay bi ñëpp di rafetlu it bu baax ci li nga xamante ni mooy invitation bi nga xamante ni jox nañ ñu ko ngir ñu ñëw ci waajtaay bi nga xamante ni bii mboolem kuy ab jullit ak kudul ab jullit rawatina nun murid yi ñu ngi koy waajal muy bisu Seexul Xaddim bis bi nga xamante ne bii sëriñ bi ci boppam moo jug taxawal boppam wax ni képp koo xamante ni day sama mbékk mooy sa mbékk na nga ma santale yàlla la ko dale ci ginaar ba ci giléem te bu ci kenn xepp ginaar waaye kenn bu ci kenn jëf ba jëf ci gileem ba di ko naw mu mel ne kon ñun bu ñuy xool li nga xamante ni moom lañu sëriñ bi gën a digal mooy ak sant ak cant nag damay faral di wax ni du waxi kese ndax sunu borom bi waxee ne wallahu axrajakum min butuuni ummahaatikum bi ma leen di génne ci seeni biir way yi jox leen ay nopp ay tànk ay loxo te lu ci nekk boo doon wax la nga xam te moom lay jëriñ duñu fi jóge waaye xalilun ma taskuruun lu néew lañuy sant yàlla te ana lan mooy cant googu jox suñu suñu diggante ak suñu borom mooy dañuy wax alhamdulilah rek yem ca ndax ak sant mooy alhamdulilah rek yem ca wala jërëjëfe Sëriñ Tuubaa rek mooy ak cant ak cant nag la koy waral mooy nit ki day dem ba xam li nu ko defal mooy lan su ko defee nag mu wëlbatiku jël ak bis boo xam ne da koy sant yàlla ngir la ko yàlla defal ndax li may faral di wax nii lii nga xamante ni bii tubaab yi ñu ngi koy def di ko tuddee cumpleaños ci Sénégal ñu koy wax anniversaire damay faral di wax ni doomu aadama bu nekk su jógee ngir taxaw ne damay def anniversaire war naa xalaat boppam li weesu ci ginnaawam boo xam def na ci lu yàlla nangu ba bay anniversaire ak dundam kon ak cant ak anniversaire booy xool day yem ndax ki defal yàlla ba yàlla may ko loo xam te ni bi duut ko nangu mukk kooko sañ naa taxaw def anniversaire sañ naa taxaw sant yàlla sëriñ bi nag dafa liggéeyal boroom ba am ci loo xamante ni kenn amu ci liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba am ci moom loo xamee kenn amu ko ci moom ba ñaar yi rek ako ko taxoon a jóg muy doon abdullahi te mooy jaamub yàlla doon xadimu rasulihi doon ndaw luy liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu mel ni moom dundam gépp moom Serigne baax loolu rek la ci doon sakko waaye ginnaaw bi mu sakkoo loolu ba am ko ba noppi dafa jël liggéey boobu la ko suñ borom fay lépp mu def ko mu nekk njariñul bindeef yépp Sëriñ Tuubaa nag bu ñu ci doon wax yaakaar naa ni juróomi junni boroomi xam-xam bu ñu toogoon kenn ku nekk di wax ci Sëriñ Tuubaa la nga xam yaakaar naa ne kenn ku nekk danga wax ba sa xam-xam jeex ci lu tax nga jeexal Serigne Touba ndax sunu boroom li mu wax ni su fekkente ni woon garab yi ci kaw suuf yépp dañ leen a dagg sot leen def leen ñu nekk ay xalima ñu jël géej yi ci kaw suuf yépp tëbb ko ba mu nekk juróom-ñaar ñu def lépp ay daa di sëpp di bind lu tax mukk ñu xam kalimatullah muy baat yàlla yi Sëriñ Tuubaa nag kon noonu ñii la mel bu boroomi xam-xam yépp daje woon kenn ku nekk di bind di sotti xalima di teg di bind say xalima dana jeex sa daa jeex te lu tax nga jeex la Sëriñ Tuubaa li mu jëfal yàlla ak rasulillah mu mel ne kon waajtaay wi nga xamante ni bii ñu ngi koy def la ko dale ca benn fanu safar ba jëm ca màggal ga ba la ko weesu lépp képp koo xam ni am nga ab yëg yéeg ci sa digg ak sëriñ bi yaa ngay jël sëw ñaq di ko ci def te saa jëlee benn def ko ca ne la wóor ni am na ku jël lu ëpp loola def ko ca te geesuwu ko ndax ana lan moo waral loolu sëriñ bi dañoo defal lu ñu ndey mënul defal ñu lu ñu bàyyi mënul donte ndey ak bàyyi dara gënu ko kawe waaye sëriñ bi moo gën a gawe ci ñu ndey ak baay ndax sunu boroom li muy tedd tedd bi mu tuddee boppam ba noppi woyu jur la ci teg wa'budullaha wa laa tusriku bihi shay'an waaye bil waalidayni ihsaanan mu mel ni kon sunu boroom bu digalee ñu jaamu ko ba noppi la ci teg mooy topp ndigalu way jur ak rafetal suñu diggante ak ñoom waaye loolu lépp li muy rëy rëy rëy li ñu sëriñ bi defal moo ko gën a rëy te ab murit bu nekk li may faral di wax ni buñ taxawoo ne li la sëriñ Tuubaa defal mënoo xam lu la sëriñ Tuubaa defal ndax sëriñ bi dafa nosru yi jël suñuy deret jël suñu lépp ba bu ñu ku bëggoon a taxaw ne Serigne Touba lu mu la defal da nga gàcceel ne la ngay wax wala da nga juum ci la ngay wax ndax lam la defal bis benn ci da nga ko mën a xam li may ci soññee it mooy murit bu nekk sooy dox jub di dem war na ñoo xam ne yow mii kat fii nga bokk bis bi nga xamante ni bii ñu ngi jub muy bisu Seexul Xaddim na lañ ko war a teeroo ak luñ ko war a taragale ak luñ ko war a gunge bi ci jiitu mooy jàng alquran ci ko mën jàng alquran ku mënta jàng alquran ngay jàng ay xasida ku mënta jàng ay xasida nga def ay salatu alal nabi te yaakaar naa loolu ku mënta jàng alxuraan mënoo jàng xasida salatu alal nabi yaakaar naa kenn ku nekk ku di julli war nga ko mën addiyee li ko Seexul Xaddim ba ca topp mooy bis bi nga xam te ne ñu ngi koy muy fukki fan ak juróom-ñett yi taalibe bu nekk war ngaa xool sa digg ak sëriñ bi doxin ci doxin wu rafet ci yar ci colin ci waxin ci jëfin ndax ay teggin dafa nekk lu am solo ci ab yaam ndax dañoo wax ne ay teggin sax bu deñee ci nit ki daanaka diine mën naa bañ a mat ndax diine mbokkam mooy ay teggin kon ab taalibe bu nekk la war ci moom mooy am ab yar ami teggin li nga ko doon waxoon ni nit ki bu jàngoon bu ëpp ñëpp xam-xam te amutub yarit dees na ko teggi fa mu nekk di ko caw ay yar mm-hmm. bu amoon ba ëpp la ñëpp ale ci amutub yarit dees na ko futti ba mu sew ba mu set wicc di ko caw ay yar su doon dem ci asamaan saak ñëw ci amutub yarit dees na ko des na daje ku ko man mu futti ko mu set duuma ko kon li ëpp solo ci doomu aadama bi rawatina ab taalibe mooy ay yar ab yar ab yar nag dafa manqué lool rawatina ci dëkk bi mm-hmm. Argentine ndax dangay gis koo xamante ni bii ah, ba muy jugee ci am réewam ay mbokka ma dajale jox ko mu tukki yedd ko teg ko ci yoonu sirata mustaqim mu ñëw jàpp ni yegg na fam jëm ba a déglu kenn ki toog sax di wax ci lu lu baax di ko waar ngir mu ko mën déglu day mel ni daf koy tànqal ca dañuy wax ne waar ku dul waaru day mel ni ku yoru xalam dem ci biir biiri armeel na da ngay xalamal ay néew ak xalamay xalaat dagg waaye yaakaar naa duñ la dégg gone gu tey mbokkam réew xamadi loolu yaakaar naa ni noonu lay doxee te jàpp naa ni ab murit bu nekk bu fekkente ni yaa ngi dund loolu ci sa biir ak sa bitti ndax doonu murit rek dafa yomb ab murit la suñ ci wàllaa yaakaar dafa yomb waaye sëriñ bi dafa digle tere dëg koo digee lu ci nekk dafa mat a xam te lépp lum ñuy digal wala lum ñu tere lépp teg na ko ci ab mbind moo xam ne dafa leer nañ bind ay téere yoo xam te ni képp ku ko jàng mu wan la ab yar bind ay téere yoo xam te ni képp ku ko jàng lépp lu si wàllu diine la ko xamal te jàpp naa ne ñaar yooyu yi képp ku xamul ba xam ko déñug gi ñu bari di wax ci dëkk bi te yaakaar naa ni koo ci laajoon lan mooy faratay njàpp wala faratay julli du la ko wax te koo ci mu ne dama déñug réer lool it nañ ciy bàyyi xel bu baax te xam ne ab yar lu amoon am solo Sëriñ Tuubaa mi nu bokk yaakaar ñun ñëpp ñii nga xam ne ñu ngi leen di wax ay seex daf leen a yar jàngal leen teg leen yoonu siraatal mustaqiim sëriñ bi nag li waxoon ne lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu al xarra wa inni ahmadu gisa sunna si nabi sallallahu alayhi wa mooy li ma tax a jóg wane sunnatahu in sa rabbi ubayinu te diirub li mu fi nekk ci loolu yi la doon dox ci loolu la doon wax ba ci la ko sunu boroom yane yan bii nga xamante ni bii moo waral xéewal gii nu am te loolu yan boobu it xut bu yeeg awliya yeeg kum man di doon bëggoon nga ko di ko sàkku waaye suñu borom jox ko sëriñ Tuubaa sëriñ bi jël yan booba yanu ko ba noppi mu dis lool waaye muñ ko ngir jëmmi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak mbindee fi nar a ëllëg kon jàpp naa ne képp ko di ab murit wala nga bëgg sëriñ Tuubaa te muy dëgg ci yow war nga am aw doxin wu yees wa war a soppi ci lépp anam nag li ko dale ci màggal gi nu jëm bu màggal gi weesoo ak la ci topp lépp ndax sëriñ bi jàngale na ab yar ba tey ndax bu ñu xoolee nahdu nahju xadaal aaj bi dara taxu ko jug dul ab yar te lu nit néew a néew xamadi machine yi nga xam te ne saa su nekk guddi ak bëccëg yaa ngi ciy nekk te dara ñoru la ci lu dul xool lan mooy Facebook la ci bis boo ko saxoo woon ci jàng xam-xam yaakaar naa ni suñu borom dina la mën a gindi ba nga denc lu bare bare bare kon ab yar dafa am solo ci ab taalibe bis bi nga xamante ni nag mooy bisu sëriñ bi li nu ci mën a wax lu bare bari la lu waraloon sëñ bi bàyyeekoo fii Eh, dal di dem li nga xamante ne nii moom mooy ci géej gi ak it eh, lan moo waral ñuy màggal màggalu tubaab yi lan mooy sababu màggal gi. jërëjëf sëñ Sam ci loolu yi nga laaj sabab bi mooy jaamub yàlla bu liggéeyal yàlla ak yonent bi ba am ngërëmam ba yàlla jox ko loo xamante ni bi dootu ko nangu mukk ci kaw suuf. parce que bi waxoon ne nabaxtukum sunu borom jox na ma loo xam ni dootu ko mu mel ni li mu waxoon ni nafaani walaysa minni yanzahu wa inni loo xam ni bii nekkul ci ay téere mel ne Serigne Touba dafa nekk ab làqukaay boo xam te ni bii képp koo xam te ni bii lu baax ñor na la te lu baax nga bëgg danga daw dëkk mali Sëriñ Tuubaa ndax yoon wii nga xamante ni bii mooy yoonu géej gi te njaal benn gi dara waralu ko lu dul ay noonu yu jógoon taxaw ngir ne yoonam wii takku takkul mboob la day tàkk rek ne mëpp fay mu jeex te ña ëpp woon ca ñooña seeni sët yoo ko fekk wala seeni doom ñu bari fekke nañ tàkk-tàkk loolu ñu xam tàkk-tàkkul moob la ba fi mu toll ngi takk te ba ilaa yoomi yëpp ansona du fay mukk kon sëriñ Touba ni ma waxee léegi ne buñ bëggoon wax ci moom du doy ndax jataay bi duñu ko may te xat na lool waaye li ëpp solo ci bis bi mooy cant gi te saytaane li mu waxoon suñu borom ne ko fa bi ma ax way tanii la aqudanna lahum siraatak mustaqima te mooy dinaa gàllankoor sa jaam ñi ba duñ la sant te loolu dafa topp njabootu sëriñ bi ndax seytaan dafa toppoon sëriñ bi gisatul sëriñ bi nag njabootu sëriñ bi lañ topp kon nun taalibe sëriñ ci waaye nañ ci bàyyi xel ni seytaan ñun la dëgmal ndax dëgmal la sëriñ ci mënu ci moom dara waaye ginnaaw bi gisatul sëriñ bi nag ci ak njabootam dong la mën a dem summa la atiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aktarahum zakirin kon seytaane saa su nekk ñu ngi jug ngir di yàqal doomu aadama yi nu mu mën a fexe ba ak jaamu yàllam ak lu baaxam lépp di gàllankoor kon li ci nit ki war a jànge mooy Sëriñ Tuuba mii nga xamante ni bi moo am lii nga xamante ni bi kenn bokk ko moom muy bisu màggal gi yaakaar naa ni képp koo xamante ne bii jox nga ko sa bopp ne ko yaama doy war nga am aw doxiin wu rafet ci màggal gi te bis buñ ci yàlla yóbboo képp koo xam ni jànkat alxuraan nga na nga dem féete ci ñuy jàng alxuraan képp koo xam ne jànkatu xasida nga féete ci ñuy jàng xasida képp koo xamante ni ab duuskat nga dem ci ñuy durus ku mënul loo lii nga yor sa course tey def istighfar wala salaatu ala nabi wala loo mën ci lu baax nga di ko def te nu wàcc wàccen wattandiku yére yi colin yi ci bis boobu loolu maa maa ngi ciy insisté nañ wàccen wattandiku yenn yenn colin yi ak yenn defin yi nga xam ne ñu ngi koy def ci màggali kon xam naa ni euh, gàtt na waaye ñu ngi sant bu baax a baax waa Argentine TV sëñ Gora Seck Gambien sëñ seen Baye Fall yow mi ñu dalal ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan liggéey bi nga xamante ne bi yéen a ngi koon def yàlla na ko suñu borom barkeelal ci barkeb Seexul Xaddim kon ñi ngi yemale foofu suñuy kaddu ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon jërë ngeen jëfati mbokk yi ñuy seetaan ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne Serigne Mourtalla Touré indi na ko fi xëy na sax li duuf ci nag wi yëpp xajul ci cin li waxtu wi moo ñu xot kon nag du ñu def lu dul di leen jox dox daje ba beneen yoon rek incha rabbi bu ko defee mu mottali waxtaan wi kon nag mbokk yi ñuy seetaan jaa ngeen jëfati.